rajo mer ba futt lañu def ñoom ñi nga xam ni at a ngi nii ñu ngi daw ci ginnaaw juróom ñaari weeri payoor bu leen aljaber ameel li ñu kaas mooy suñu salaire parce que boobu ba léegi comme daf ñoo arrêté daf ñu war a fay suñu xaalis fu ne dem nañ fa nag pour fayeeku pour pour pour fay ko suñu xaalis mënuñu fexee ba mosuñu wax verser IPRES mosuñu verser si dara waaw congé tamit mosuñu ko laal man fi may wax ne bu ma dara liggéey ba léegi 2021 ba léegi depuis daaw ba léegi ñu ngi daw moo ne pexe bu ne def nañ ko ngir am saafara. bu mu ñëwee personnel ba dama toog dama dafa ñëw mu ne dama ñëw dama leen fay deux mois bu mu ñëwee fayul mu ñëw indi fi ay wax yoo xam ne mun mënuñu ko comprendre ñu ne ko c'est DG am na loo xam ne yow kilifa nga te yaay dernière parole bi boo ñu fayloo suñu xaalis dañuy xool beneen yoon. ci la ci la ma ci la ma indil problème jafe-jafe nag ci jour boobu na la ma indil jafe-jafe boobu ba léegi liggéeyuma ànd naag euh, sama benn collègue moom dem na ñaari ñett nit dem nañ ba instance de travail mais bu ñu demee foofu nañ recevoir leen leen teg leen leen ci yoon mais boobu ba léegi convoqué na la deux ou trois fois nangu dem loolu jural leen ay jafe-jafe ci seen njaboot war a fay suñuy location dundal suñu njaboot war a fay inscription xale yi ainsi de suite mais boobu ba léegi ñu ngi daw jaro seen sëy yoo xam dafa yëngu tas am ñoo xam ne seen sëy dafa ci la jaar tas parce que mënoo yor doomu jàmbur doo ko jox lu mu bëgg day dem bala loolu fa loolu la fa demee man mi ma waxee nii dañ ma héberger actuellement ni fi ma fi ma dëkkoon pendant trois mois nga nii dëkkatuma fa parce que dama doon débrouiller sax nekk fa mais finalement xam naa ne ma fa nekk mu génnee ma fa. jéem nañu nag jot moom mi nga xam ne mooy Mouhamed Charara di boromi Aljaber téléphone ak secrétaire am waaye antuwul.